yàlla bul ko utal makkaan yow bu waxee sax ne bind naa asamaan ak suuf yi juróom-benni fan su ma stawaa alal arsi mu dem ci xarasam nga tax yow nga bëgg koo jël xaras nga wutal ko place mu ne la man wasi'a kursiyyuhu samaawaati wal ard sama man sama sama toog bi moo asamaan ak suuf kon kii mu ngi lay aaye ngay xaatir yàlla di ko utal para barab boo xam ne dafa toog mel ni ku toog ci toog donte le am na ñoo xam ne seen xaqida loolu yonti yalla Musa, neena yalla fo dekk man xam nga dem gan wax ak yalla alxuraan ko saxal kon man nako laaj yalla yow fo ne ah Musa, man xajuma ci asman xajuma ci suuf kon fo xaj mu ne xanaa ci xolam jambu ma gem lol xam-xam la yow xajula ci asamaan xajula ci suuf xaj ci xolam jam ta jambang ci ko suuf di porong porong tuti lol nga xaj ci xolam bi te xajula ci asman ak suuf. loolu xam-xam la moo tax moo tax hadis boobu bi ko yéntu yàlla ma man nettalee ñu bari ci solo solokati hadis yi dañ ko weddi xamul tax ñu weddi ko parce que arrangé wul leen parce que ñoom dañoo wax ne ñu ne boo jeexalee asamaan euh, dem ba hadisul kursi ñu ne ca xaras fa ñoom noonu lañ koy waxee léegi moo tax duñ nangu mukk na hadis bi wér na waaye hadis bi wér na de yàlla ni ci xolab jaam la dëkk <laughs> ay wér na kay xanaa déglu bi muy waxee ne mom yàlla dégg fi muy waxe ne yawma la laa malun wala banun illa man atallaa bi qalbin salim yàlla neena man awma soxla bis bu ngeen di ñëw ku fa isi ala la dom moy askan yeeg aduna yi ku fa isi du soti xol rek qalbun salim rek qalbun salim moy lan xol bu yàlla nek mata yàlla lebal leen ko na xaju ma ci asaman xaju ma ci suwa xina ci xolab jàmm bu ma gëm nga ah loolu de wax la way hadith bi wér wér na kay ma jox la beneen aaya bu dëggal xadis bi xam nga aaya léeg-léeg nga ne wérul fekk xadis ko aaya alquran ko dëggal xadis bi wérul fekk aaya alquran ko dëggal dafay wér yàlla nee na inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yamilna wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kaana zaluman jahula yàlla nee na kóllëreem gi muy amaanaam gi égal xamam gi moom yàlla dama ko dama ko gaaral asamaan pour mu enu ko asamaan ne lii dafa diis ma jox ko suuf suuf ne wuu àttanu ma ma jox ko jaww ji jaww ji mooy xeer yi rek xeer yi ne wuu àttanu ma mu ne mu ne waxamalaa insaan insaan bi xenu ko waxul doomu aadama yi xenu ko de benn doomu aadama la wax insaan waxamalaa insaan doomu aadama xenu ko bu fekkee yàlla kóllëreem gi asamaan attanut suuf attanut doji attanuñ te lii aaya la mu nga ci suratul ahsaab léegi yàlla ne waxamalaa insaan doomu aadama xeenu ko kon bi la yàlla ne maa ngi dëkk ci xolob jaam loolu du dëgg xay hadis bi wér na kay aaya alxuraan ko dëggal gis nga alxuraan ji jàngal ni ko déggee rek waaye da ko fi bàyyi de da ko fi bàyyi de dafa wér dafa wér lu leer nañ lay wax ñu alxuraan kon kóllëre yàlla gi asamaan attanut ko kóllëre yàlla gi suuf attanut ko kóllëre yàlla xeer yi lu dëgër dëgër attanuñ ko waaye waxamalaha insaan nit xenu na ko xenu gi ko nit xenu moo la xamal nit mooy xalifa yàlla kon bula la yàlla ne xajuma ci asamaan xajuma ci suuf waaye xaj naa ci xolab jaam kon hadiis bi wér na wér na hadiis bi wér na waaye ayam alquran kay su ñëwee dëggal xadis jaratul ngay seet xadis bi ku ko soloo ku nekk ci diggante bi parce que loolu bi nga ko doon lijjanti ku soloo xadis bi comme ñi nga xam ne ñooy jàng mustalaatul xadis di seet xadis bi ñu ko soloo dégg nga ndax xadis bi saxiix la wala daif la wala mursal la di xool dëgg la baax na loolu kay xam-xam la waaye dama wax ne hadis bi aaya alquran moo wéral ne dëgg la yàllaa ngi wax ne man xajuma fen boo amoon foo maa seeti ci xolab jaam bi nga may seet ko wéral xol xol xol moo xol xol yaatu lu yaatu xol xol dafa ëmb lépp xol la kon suma borom nee wajaal naa def ne ñun yàlla fi haa ci doj yooyu fi jaajan dégg nga mooy ci kaw suuf rek fi jaajan ay mbedd subulan ay yoon yu yaatu fi jaaj ak subul yoon la rek dañuy firi rek ne mooy yoon yu sew yoon yu mag yi laaloo ndax la ñoom yaata doon nañu kon ni ngay tukkee ci saahir di dem ci dëkk dëkk nit ñi xalal la ay yoon nga mën a dugg ci garage bi le wàcc ca garage ba le yaa moom ba egg noonu la yàlla defee yoon ci jaww ji bi mën a jógee dem Saudia ya, wala mu dem Amerika dégg nga am na yoon wu muy jaar ci kaw ba egg noonu la amee itam dégg nga ci pays yàlla bi yoon wooy jaar dégg nga ba àgg ci sa borom de te mooy nga jaar ci ak yi ci suuf yaa ngi moom ba bala nga àgg ci ba ci suuf loolu moo tax mu ne laaloom yaxtadoon wa jaxal naa def ne ñun yàlla asamaa asamaan si saqafan muy teraas xam nga wax na la suuf asamaan a ngóob moom tam def nañ ko mu nekk benn terrasse de fan mu nekk benn tent maxfuusan bu ñu wat xëy daw tent bu dëgër waaw daw tent bu dëgër waaw asamaan lu garaaw la xam nga suuf bi mu ko waxee waxut an tamit la wax bu mu yëngatu waxut maxfuusan moo tax suuf léeg-léeg mu yëngatu mu rëng-rëngi waaye asamaan moom maxfuusan la wax maako ko téye yàlla doo dégg mu ko yëngatu na waaw di dëkk sàngam samaan saa fa daanu kay mosagu ko dégg ci njëkk way mujj wajaal naa def ne ñun yàlla asamaan si saxfan muy terrasse saxfan muy tent mahfuusan bara bu ñu wattu asamaan si def naa ko teraas boo xam ne ñun ñëpp a ngi nii buñ génnee di ko xool mu tiim ñu te kenn mos dégg daanu na waaye keroog bu yàlla soppi asamaan mu nekk leneen lu dul asamaan asamaan soso bu waa tamit dana am xaqaayiq de waxuma xaqaayiq waaye dafay nekk sax xadaraat juróomi pay yàlla yëpp fay dajee ci asamaan moom lay wax ca beneen aaya ca Ibrahima ne yow ma tubbadalul ardu xeyrul ard wa samawaatu bis dana ñëw danaa ceeñ suuf si lu dowul suuf danaa ceeñ asamaan si lu dowul asamaan léegi asamaan ak suuf ak jaww ji xàqu la waaye ñu bëreen ko jox gannaaw waaye bis dana ñëw dangeen xam ne asamaan ak suuf ak jaww ji xàqu de dëgg gu wóor la waaw ci ngeen di doog xam dëgg dëgg asamaan moo tax ma ne wa jaxal naa assamaa saqfan def naa ko mu nekk benn tent maxfuusan bu ñu wat doo dégg mukk ne daanu na waxum ñoom daal ñoom xiifiir waxum ñoom ñi weddi yàlla ñoom moori doona way dummóoyu lañ way dummóoyu way gëmmu xaale lañ xan aayaatina ba duñ gis suñuy aayat suñuy kawteef duñ gis suñuy kawteef waye deug deug li yalla de leral ni nim lere ku am dimbal war nga manajis. meuna gis waye dañ ko jox gannaaw xam nga ki nga xamne ne xolam dafa muru koku bëtam du meuna gis leg leg nit ba di ni xoll ta fek nekkul di gis mata alquran nonna fa inna la taxmal abzar walakin ta'mal qulub lati fi sudur bu kenn japp ne gumba deug moy beut déedéet gumba mooy xol xool xol mooy xam mooy gis waaw mooy affaire bi de yonent bi junj ne ko ci hadis sax di wax ne bu xéwéne lépp xéwén bu yàqu lépp yàqu moo tax hadis bi ma la wax léegi ku ko weddi rek da ngaa a xam waaye boo xamoon doo ko weddi yàlla nee na asamaana ngoo gannaaw suuf asamaana ci topp waaye waxum an ayaatiha an ayaatiha muhridoon waaw waxum ñoom moxori doona way du muyin ci ci kawtéefi asamaan yi ak xayiqam yoon nekkut ci lu mel ni kaw kawtéef kawtéefi asamaan yi lu mel ni biddiw yi lu mel ni weer wi lu mel ni jant bi kawtéefam yaa ngoog waxum ñoom bama taxawale taxawalee asamaan def ko muy terrasse mu tiim ñëpp asamaan tiim ñëpp Mata yonti yalla muhammad borom asaman mom mi feñu maqamum moomu borom buséeri yi xooloon ne ko kayfa al anbiya ya samau ay asaman ay deug la yow yaa xamul rek waaye deug la yalla ne asaman zuzu na gannaaw bu nyom wotto ci maqamum ko ma wuhum ñom ñi yalla ñom an ayatiha kaawtéefam yi ak feñu waye bi ta moy xaqaaji xam daf daf leen ndax xamuñ ko mooy lan borom saraabaanku bind mu leer nañ dafa wax mu ne mooy biddiw yi mooy weer wi mooy jant bi xam nga ne biddiw ak jant ak weer dara la de hmm? wa huwa moom yàlla allazi mooy yàlla ji nga xam ne xalaqa bind na alayla guddi gi war naara ak bëccëg bi wa samsa ak jant bi wal xamara ak weer wi kullun képp ci yii ma wax la ba yasbahuuna yasbahuuna dana mu dana mu dox fil fil falaki ca maqaamaam ma ku nekk dana doxee ca maqaamaam ku nekk ca fulugam balay doxee mooy ca barabam ku nekk am na yoon de xaqaayiq ma doon junj léegi naan la suuf am na ko asamaan am na ko am na ko maanaam loolu léeg nga teg na sax xëy na loolu ay ay programme yu di wax rek la yàlla ñëw na kaay ma leeralal la ko layla wan nahaara layla ak fu mu dëkk xanaa xanaa waxuma la woon suuf si ak niñ ko tàllale ak yoonam yi hmm? xanaa yàlla waxul la asamaan si ak ak ak ak yi gaa yi joxe gannaaw léegi lu ci topp du jaw ji mu waxoon ne moom moo nekk ci diggante jaww ji la wax nag ne xalaqa layla wa nahaar layla wa nahaar fu mu dëkk loolu jawaa ko moom bokk yi alquran dëgg la wa huwa allazi xalaqa layla wa nahaara wa samsa wal xamara jant beeg weeri fu mu dëkk ci asamaan kullun képp ci yii dégg nga yasbahoona dana mu féey dana mu dox dana mu taxawee fil falaki ci falagam ba ci barabam ba ku ci nekk dafa am maqaama moo taxawee ci yii muy wax ni suma borom ne wama jaalna defu ñun yalla li basarin ñal mbindeef min qablika njëkk la yow yalla muhammad al qulda muy aji sax lu la njëkkoon amurun Bindev mu fi sax de te lolu waccina bi heferi wax naan bayi len ko rek muhammad sonnal nañu legi mu dee wax ji jeex bo fi heno haq diko joxe muy deug te nit ñi bëgguñ deug lañuy ñuy njëkk def mooy ah lii de dem leen muñ rek yàggatut nit yàggul leen mu dee wax ji jeex yow mi wax na diw sàngam léegi mu dee wax ji jeex xanaa yow dee yow loolu gàtt xel rek xàqu bi daal bu dee moom nga yore joxe ko rek dangaay dee tey dangaa bu ci sa yoon nekk sëriñ bi daal na wax ne dee noflaay la ci ku jub waaw waaye amee àqu rek ne dama koy nëblu tax ñu ne eh, déegi laay ragal déegi moom foo mën a nekk mu ñëw baaxal bonal foo mën a dëkk ma fekk la fa na étage bi gudd na étage bi gàtt waaw mën a mën a faju nekkal docteur bu ñëwee rek nga loolu moo tax bi ñuy tuumaal yonent yàlla mat di ko xas naan ah léegi tey léegi ngeen noppale de sonnal na leen de waaye léegi mu dee bu dee wax ji jeex yàlla ne ah xamu benn bindéef mu fi mos bind mu des fi de ku ma fi mos bind daal fa ngay dee su yonent yàlla ma ma dee yéen fa ngeen a dee di lii de la yàlla tontu te lii ñun ñoo ñoo ko moom ba léegi ba léegi nit noonam lim mu koy xoolee rek mooy ay kii léegi mu dee yow foo jëm yow bu dee gis nga keroog buñ la ko tàggee ba nga dugg sa néeg da pooj ay boo génnee doo fi yàgg dee amut kër kenn du ko du ko ndokkoo nit dof rek dof rek moo koy ndokkoo nit waaye ñu ngi koy ndokkoo yonti yàlla Muhammad léegi tey mu dee sonnal na dëkk bi gune gi leen ni mu ñu sonnalee mbel mbel mbel wax ju dul jeex yàlla nii yàlla naa te xañ nañu suñ bànneexi bakkan yi ñun xam nu ñoo def léegi mu dee mu jeex lii lañ wax suma borom di leen tontu ne wa maa jaxal naa defu ñun yàlla li basarin ñeel nit min qablika ci ñi a jiitu woon alxulda kara aji sax mbindeef mu fi sax loolu mostaxam léegi nag damay laajte man yàlla afa in mitta ndax ndem deena moom yonentu yàlla mat comme ni ngeen ko waxee fahum ndax ñoom xaalidoona way sax lañ loolu de maa koy laajte man yàlla ndax su yonentu yàlla ma dee yéen fa ngeen a continuer dund noo da ngeen dee fekke ko ndax kullu nafsin bépp bakkan saa'iqatul mawti dana mu deere bakkan boo gis dana deere waaw saa'iqatil mawti nag bëri nañu koy jàng waaye yàq la kullu nafsin saaiqatil mawti ñi koy wax ñëpp lu ci gën a bëri loolu la ñuy wax ndax ba dafay aaya boo xam ne ñi ko mokkal dafa bëri waaye kullu nafsin saaiqatul mawti saaiqatul mawti waaw ngoog wa nabluukum bi zarri wal xayri fitnatan wa ilayhi turjaun صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين laamin won nañu ne tayam jeex na yeewal foofu ba ëllëg insha allah nañ fekkee yàlla nañ tal yàlla na alquran de suñ dimbal yàlla nañu alquran layal bañ mu ci ca kanam yàlla salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh لئن عزني لقي النبي ووصاله فقد دام لي تذكاره وخياله وإن عذني مره له فقد طيبني نوره وجماله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله شغفت